jërë ngeen jëf yéen mbokk taalibe yi yàgg naa sama xol seet na si li nga xamante ne maam moo tukkee si bés bi nga xam moom lañ tuddee màggul xasida yi tey am ngeen toofe am ngeen euh, toofe yi nga xam daanaka dund ngeen ñun si li nga xamante ne moo rusee cérémonie officielle bi ak kilifa yi nga xam ñoo fi nekkoon euh, ñu ngi fekk ak sëñ Ablaye mi nga xam daanaka sunu magum si liggéey bi nekk Mouride TV sa France euh, sëñ Ablaye ginnaaw bi leen ba noppi yow maanaam lan nga ñu mën a àndil lan nga ñu mën a si li nga xam ne maam moo rusee fii cérémonie officielle bi mm-hmm. Euh, jërëjëf euh, Seydina Mohamed euh, di ziar mbooleem waa Bichri di ziar itam mbooleem presse bi nga xam ne nii teew na fi comme niñ ko àndee suba ak léegi rek ci liggéey bi nga xam ne nii mbooleem presse bi ñu ngi koy liggéey te Bichri nekk itam presse bu ci ràññeeku ci liggéey bi nga xam ne nii mooy bisub xasida yi comme ni nga ko waxee rek cérémonie bi di ndaje mi nga xam ne nii moo doon tëj bis bi di ndaje moo xam ne nii ci teewaayu Serigne Amsa mi nga xam ne nii moom moo woote bis bi ak ñi nga xam ne nii ñoom la bokkal Serigne Touba rawatina waa kër Serigne bu waaye nag ci teewaayu Serigne Bassirou Mbacke moom Serigne Abdou Khadr yaakaar naa ne xol yëpp sedd na xel yëpp dal na ndax xës day Serigne Touba yi yaakaar naa ne képp ku ci nekk boo déggee wax ji nga xam ne ni kilifa yi wax na ko sa xel dina gën a dal nga gën cee góorgóorlu ku ci nekkul itam boo déggee wax ji di nga gaaw soobu ci xam ne li ñuy sàkku àdduna ak àllaaxira lépp mu ngi fii di gën a xamal nit ñi itam ne Serigne Touba amut lu dul tànki kanam ndax léppam ca kaw ca kanam rek la jëm yaakaar naa ne ku dégg euh, mébét yi nga xam ne nii Serigne Amsa am na ko ak itam ni nga xam ne nii Serigne Touba jàppandi jàppandil na a na a taxawal loolu ci bool ni kër xasida gi yaakaar naa ne di nga gën a góorgóorlu ci xasida yi gën a delloo njukkal Serigne Touba Khadim Rasoul gën a xam ne Serigne Touba Cheikhul Khadim kenn du moom te lépp lu ñuy sàkku fii ak fa ñu jëm itam Cheikhul Khadim rek moo ko yor te ci xasida yi la ko gën a gaawe rawatina ci xasida gu tedd nga xam ne moo di Jaalibatul Maraqib dégg nga yu am solo yi nga xam ne wax nañ ko ci kon daal sëñ Mouhamed yaakaar naa ne bis la boo xam ne nii bisum mbégte la bisum tawfeex la bisum bis boo xamante ne bi am nañu yaakaar lépp lu fi waaye ñaan rek suñ borom dina ko nangu ci barke xasida yi di sëñ Sëñ la bàyyi sawa nga sàng da nga lu am solo mooy kër bu xasida ndax dëgg nañ sàng sëñ Abdou Samad sëñ moom sëñ Sonia bi di leeral si addi nga xam ne sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ am sa maam jago na ko jàngul xasida muy pàkk bi mu am da ko fasee def kër bu xasida loolu ban jàng nga si am waaw yaakaar naa ne Serigne am sa bu jëlee cent mètres wala plus de cent mètres carrés wala ci lim boobu nga xam ne moom lañ tudd lim boobu nga xam ne moom la ñu tudd jagleel ko kër goo xam ne ni ci xasida yi la ko war a tabax maanaam këru xasida yaakaar naa ne wàccul ndax ne wàccul yoon wi ndax yaakaar naa ne moom léppam xasida la te itam day yell kër goo xamante ni ni ñu koy amee ci yeneen kër yi moo xam ci liggéey bi ñu nekk wala liggéey bu mën a doon ay kër spécial yoo xamante ni dañ koy euh, jagleel loola xasida yi moo ci war a jiitu ndax gis nga xasida yi rek moo fi dajale nit ñi nii ñu bàyyee ko fu nekk ñëw yaakaar naa ne nekk na loo xamante ni murit bu nekk na cee gën a ndax ni niñ ko waxee léegi rek dégg nga lu am li nga xamante ni nga xam na ni moom la Serigne Bassirou euh, moom sëñ Abdou Khadre di porte parole yoon wi addiya ci tàmbale euh, maire Touba moom itam euh, addiya ci tàmbale ak benn murit boo xamante ni na ci un million mboolem julliti ak taalibe yi cee daal di tabbi xam ne ku ko def ko ne rek Serigne Touba nga ko defal ndax ku defar xasida yi rek Serigne Touba nga ko defal sëñ Abdou laaj gu mujjee ndax yow yàgg nañ tase reportage nga nekk a si yoonu Mouride Euh, yow ban jàngat nga am si li nga xam ne maa ne bëri euh, bésub xasida ndax bésu yàlla saak bésub xasida yi di gën di màgg ban jàngat nga am si loolu. waaw jàngat boobu mooy euh, Serigne Touba Cheikhul Khadim ni mu ko waxee woon rek léppam ca kanam rek la jëm te itam euh, ni ko ni ñu ko waxee woon léegi ci ci ci ci ci biir cérémonie bi dañ ciy sant Serigne Ta Serigne Saliou ndax yaakaar naa ne ci bi mu fi nekkee Serigne Touba la ndaw ñi gën a xiir seen bopp ci xasida yi la ndaw ñi gën a soobu ci xasida yi di soññ nag mbooleem presse bi nga xam ne nii dañuy liggéeyal Serigne Touba Cheikhul Khadim moo xam muy Bichri TV moo xam muy Mourid TV moo xam mul Al Mouridiya moo xam muy Xasaay TV moo xam muy euh, Al Khadimiya presse bu mën a doon rek te benn jubluwaay rek lañ am muy liggéeyal Serigne Touba Cheikhul Khadim yaakaar naa ne war nañoo gën a gën a góorgóorlu góorgóorlu ci euh, xew yi nga xamante ne nii Serigne Touba rek lañ koy defar rawatina ci xasida yi buñ fi dajeetee ñu boole suñ bopp mu nekk benn xam ne ñoo bokk jënn yéene ji muy tasaare njàngaleem Serigne Touba ak tasaare liggéeyam Serigne Touba ba a nekk ci adduna bi xam ne nii Cheikhul Khadim sas nañu ko ci liggéeyam bi ñu war koo tasaare ba mbooleem foo xamante nii na ne sax liggéeyam Serigne Touba moom àgg fépp waaye ba mbooleem fu ñu ko xamewul rek mu gën faayaatu yaakaar naa ne loolu mooy objectif u presse mouride bi nga xamante daje nañ fi Seydina Mohamed ba ngeen teewloo ki xam moo di Serigne Abdoulaye Faye euh, di sunu si bi nekk si Mouride TV euh, ñu ngi feggoog maam Xaadim Fall mi nga xam ne leeral sëñ Cheikh Fall Mbawar tey sëñ Cheikh Fall sëñ Cheikh Fall Mbawar na lool si ñi gën a euh, ba noppi tey teew nga si bés bi nga xam maanaam moo di màggalu xasida yi maanaam yow bëggoon nañu xam sa diggante ak sëñ Amsa ak tamit ban toofee nga am ba teew fii si bésub xasida gi waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci bi salaay salaam sant sëñ Tuubaa Cheikh Ibra dañuy sant bu baax a baax ci eh, bis bi nga xam ne teew nañ fi sun borom may ñu kàttan ak ndimbal bañ at yi yëpp ñu fi teew tey ñaan mu jëm ca kanam kanam ginnaaw loolu nag eh, sëñam satu moom li xam ci moom weesu dara lu dul ak baax ndax diirub bi liñ ko xam ba léegi musoo fee ñëw. benn yoon wala seen saa soo xam ne da nga fi gis àdduna li nga fi gis lépp maanaam Serigne Touba dong lay doon te murid yi Serigne Touba rek la ñuy wër bis bii nag di bisub xasida di màggalu xasida yi munta ñàkk ndax murid yi seen lépp seen li ko Seex Basiir waxee mbootum sëriñ bi mi ngi ci xasida yi ndax sëriñ bi daa wax ne lim lim li muy li muy eh, joxe du ko def ci li muy fonk fonk alxuraan du ko ca def ndax bu ko ca defee naar yee ñu gën gën a man maxaarijul xuruuf kon danañ ko jël bañ du ko def ci kurusit ndax bu ko defoon ci kurus soose yee ñu gën a ñemeb toogaay danañ ko jël bañ ci xasidaam yi la koy def ku ko bëggul ba ko fi gannaaw ba ca toppit yéen a jiñ ko defee muy liggéeyal sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa daa mas a ànd ak maam Cheikh Anta ne euh, ci toolam boobu ñuy wax bu sànnu aarifin bi mu nekkee Jolof léegi nee nañ bi sëriñ euh, bi sëriñ bi àndeek moom ca tool ya bañ xool tooje ba dëpp nee na sëriñ bi ne sëriñ bi ne ko ba bi ñu wëññi dañoo gis ñetti waxambaane euh, kenn ka nekk ca kaw di gor ñaari nekk suuf di folet nee na sëriñ bi ni leen sëriñ bi xool leen xool leen ba ci àgg daal di dem waxul dara nee na ba mu àggee ca daara ji woo maam Cheikh ni ko damaa bëgg a waxtaan ak yow ci liggéeyal ma daanaka bépp murit bu may liggéeyal bu xëy suba ba ngoon di ma liggéeyal te yàlla rek tax liggéeyam boobee peese nañ ko jaamu yàlla boroom xam-xam bu jaamu yàlla juróom-ñaar fukki at yoo xam ne jéngu ca liggéey liggéeyu murit ba wat ko kon liggéeyal sëñ Tuubaa rek moo am njariñ te liggéey def liggéeyal sëñ Tuubaa la. ngeen di ay dérétu Cheikh te xam nañ ku nekk maam Serap Fall ni mu woon ak euh, Serigne Touba ndax Serap Fall nee na ah doom ginnaaw maag sëñ Bamba xasida yi. Hmm. Euh, yéen euh, lii lu muy def si yéen bés yàlla sàkk bés xasida yi di gën di bari lii lu muy def si yéen Fall. loolu moom tawfeex rek lay def ci ñun ndax Cheikh Ibra ak dañoo bokk borom Cheikh Ibra sëñ Tuubaa mooy boromam ndax Cheikh Moussa Ka dane mas nay xibaar ak ngébbaloom bay wax ne yàlla mi ko moom moo ko ne Bàmba moo la moom raasi ko jox ko say pexe kon moo moo moo yi dañoo bokk borom li nga xam ne dañoo bokk borom na képp ku yëngu ci xasida ku ne tamit lu wér dana cëral Cheikh Ibra cërin woo xam ni da xam ni kon lii ñoo ànd Cheikh Ibra day yoon wi xasida di xasida day tànki sëriñ bi te Cheikh Ibra mooy yoon wi te ay tànk ci yoon rek lay jaar. Fall looy dénk si gone yi nga maam ñu ngi ñëw si kanam te dañoo fas yéene nekk si xasida la nga la nga leen dénk. xanaa rek ne ci rek xasida yi boo ci nee la la nga na nga war a mel moo moo la koy def amul amul da ngaa war a mel nii wala mel nii soo koy jàng xasida li muy jëriñ mooy melal na nenn li la nit ku ne man daal la may wax lépp mooy képp ku ne nit ku bëgg a jàng xasida wutatu xasida te di ko jàng wutal xasida di jàng xasida la ca des nag moom xasi xasi daa koy def ci yow la nga war a mel na nga war a selleeg na nga war a defee lépp xasida xasida moo lay sellal waaye xasida kenn mënu koo sellal man loolu laa gis. te la ca toppit maam Cheikh Ibrahima dégg naa mas naa ku ñuy wax Baye Cheikh Diop Café ni ko gisoon yaxinu fu mu ne mu ne ko faal de ci mawaahibu lañ ko miine woon ne mu ne ko bindal ma ko mu bind ko mu ne ko du noonu mu bindaat mu ne ko du noonu ca ñetteel ba mu dem jëli mawaahibu naafi ne ko Cheikh Diop fonk leen xasida sëñ Bàmba ndax man kat sama liggéeyu ku liggéeyam dara feeñu ci daane ko lépp lu ngeen gis ci àdduna ci taraanga xasida yi sëñ Bamba yee ko fi indi kon loolu dong doy na ci. Fall nan la ñuy jëriñoo si xasida yi. jàng rek te sëñ Tuubaa tax waaw jàng rek te sëñ Tuubaa jàng rek te sëñ Tuubaa tax dong tax waaw. jërëjëf Fall jërë ngeen jëf yéen mbokk taalibe yi li ma doon li nga xam moo leen daloon fii euh, si maagul xasida yi euh, mu doon fii kese ñu am sa fii Touba ñu ngi sant bu baax ñi nga xam ne ñoo jàpp si liggéey bi ku mel ni Euh, sëñ Xaalim Seck mi nga xam daanaka moom mooy directeur BGTV Touba ndax daanaka booba tey taayu si si benn yoon te dafa bokk si comité bi nga xam maam ñoo taxawal bés bi di sant baax si cadre yi di ki nga xam daanaka moom moo di Alaaji ñu gën ko xam da daanaka tey tout au long de la journée daanaka moom moo accompagne si ITV baax équipe Mafatir BGTV Sénégal international euh, moo nga xam daanaka moom mooy Serigne Ndiaga Seck di leen jaajëfal di sant bu baax ñi nga xam moo si waa diaspora jërë ngeen jëf ba déwén incha allah